l l'élection présidentielle bi ñu jëm ce n'est pas des histoires de personnes c'est pas des histoires de personnes ah si ah non ah si non je suis désolé c'est la rencontre d'un homme avec son peuple je désolé non c'est moi moi j'en ai une autre lecture c'est la rencontre la présidentielle d'accord c'est la rencontre d'un homme avec son peuple man de beneen lecture laa ci am pour cette élection yii di ñëw nu muy demee yii di ñëw hmm. les Sénégalais devront répondre à une question est-ce que et Macky Sall d'ailleurs laa laa c'est les Sénégalais devront répondre ci benn question est-ce que da ngeen am envie continuer dans le système. waaw ah, parce que ñoom amul continuité la ñu. wax ou est-ce que vous avez envie qu'on aille vers la refondation vers un nouveau projet vers un nouveau. Sénégal donc c'est une présidentielle référendaire. référendaire la te Macky a dit plus ou moins la même chose sauf que quand il s'agit de parler de notre projet il dit l'aventure je lui concède mais au moins ñoo bokk nañu analyser que ne élection yi du affaire de nit élection yi sénégalais yi ñooy xool ne. yaa a un régime qui termine même le président bi bokkoon bi nga xam ne moo ko ne mooy le président Macky Sall day dem sénégalais ñooy xool on continue ou on fait un virement c'est ça les enjeux donc c'est moins ce sera moins ce sera dafa mel ni yéen nag. Euh, le sens. ba muy nekk Ousmane Sonko da ngeen doon wax naan Ousmane Sonko. non c'est tout le tu sais ngeen présenté ko. noonu lay demee sous waat moo tax tu sais pourquoi j'ai il trois quatre mois ma ne je sors l'ouvrage sur le projet souverain le jour ils ont pris la décision de dissoudre parti bi jour boobu laa jël décision ne damay génne livre bi. parce que je voulais leur dire leur faire comprendre que élection yii di ñëw du parti du nit projet la le projet de souveraineté on va en faire un ouvrage dans lequel on va vous rappeler les fondements essentiels on va même jusqu'à vous dire c'est quoi les orientations sectorielles qu'on va avoir tegal leen ko et on va débattre dans ce pays man lijjantiwuma kuy nekk candidat Pastef man xam naa ne Moussa Balla Fofana man sama job xam nga la le débat là le veulent ou pas ko am nous allons discuter de leur bilan et j'étais sorti des éléments de bilan irréfutables et on va discuter de notre projet loolu ils ne vont pas y échapper donc bu ñu dugal dans les dilatoires ñun nekkuñu dans des histoires de personnes nous portons un projet nous savons ce que nous voulons xam nañ élection yi lan la te mu neex leen mu naqari leen au soir des élections c'est le projet de souveraineté qui va gagner les élections léegi nag pare nañ dékku leen lu ñu mën a def. nañ ko devant euh, devant un Amadou Ba devant un Idrissa Seck devant un Malick Gakou. Sénégal devant, a le Sénégal a changé. Euh, les Sénégalais ont évolué. c'est-à-dire Sénégalais yi xam nañ ne mbir mi du nit. Ousmane li ko nit ñi bëgg bëgg bi mu commencé grève de la faim bi lan la ko militant Pastef yi doon wax ex Pastef bàyyi grève de la faim bi mbir mi projet la. vous voyez les gosses les lire et là j'ai compris ah là on a réussi on a réussi ces jeunes passent différemment. xam nañ ne bëgg nañu Ousmane parce que dëggu na gëm na li muy def te bu téyee dara il va fond du wor très bien on lem pour sax et mais on l'aime surtout parce que ne dafa yor